de dama nit noo mel noonu nga war continuer mel mais nga ni ñu gis la nga nga amul sens parce que xam ne donc c'est pas logique ah wax leen gëm bopp rek parce que amul sens xeesal amul mujj yow leer na la ne xees nga tey dans deux mois mun nga amul non seulement amul mais dana yàq sa peau amul ma wax conseil ñu gëm bopp ba pare bu leen dara jaral ñu xeesal en plus ñuy wax ni góor moo tax ma xeesal man pour man lu gën logique sax sa bopp moo lay tax nga xeesal bëgg nga sa teint rafet nga xeesal mais góor moo tax ma xeesal amul sens parce que soo suñ la xees taxee nga xeesal sa peau yàqu dañ la fi bàyyi rek donc c'est ça non loolu moom lenn moo ko njëkk mooy ñu dugg ci kër yi sensibiliser nit ñi wax leen ci côté santé xeesal nu muy def seen po ba pare avant ñuy peut-être mën na am impact publicité bi mais su publicité wul tamit ñoom xam nañ xeesal xam na fu ñu koy jëndee donc mun nañoo dem jënd ñu ñu wax leen côté côté santé ak côté esthétique ba pare lu muy def seen peau loolu daal moo gën a am importance po man. aw ma benn secret sangu ba set diw lu naturel jeex na des fois sama sama diw jeex sama jël karité diwoo ñu laay dafa neex de. voilà c'est ça <laughs> merci à <laughs> man nag dama xamoon benn côté yaram bi moo amoon xam fii xonq fii ñuul loolu moo dugaloon ci xeesal mais yàgg na temps boobu boobu amul ay tub amul lee nga daan diwa di maas ndànk waaw waaw daal di xees boobu ay année soixante quinze la boobu yàgg na man j'ai j'ai soixante-huit ans waaw léegi arrêté naa ko depuis l'an set dama toog sama yaram bi def ay heure waaw di am ay heure di am ay tâche ma xam ne lii duma ko continuer dina ma jural leneen ma bàyyi définitivement ah gis naa ca tan gis naa si lu bari parce que léegi lee rek lee yi xare yi di diwoo rek moom laay jënd bu 500 di ko diwoo ma sangoo ba sedd diw sama yaram waaw maa ngi leen di conseillé maa ngi leen di wax lu nekk ci xeesa ne leen baaxul leen bàyyi ñii samay doom ne kii sama moom day diwu dama koy wax naan na bàyyi muy diwoo ndax amul mucc daal am ñoo xam ne dañuy def comme gaynde yi ñuul kuk fii ñuul fii kii mais yàlla dimbale na moom duma bàyyi ba léegi loolu dalu ma waaw loolu nag xam nga ni ay xeesa ba di ko publicité waaw ñuy jënd lu ñuy publicité ko xam nga tamit loolu wóoru waaw ànduma si daal ànduma si waa képp kuy bëgg xeesal daan na nga bàyyi mu am sa lee bu baax di duus sa yaram ndànk waaye bul duwa xeesal. waaw xeesal moom ku ne xam na ne baaxul quoi même tubaab yi ko fi indi sax xam nañ ne xeesal baaxul en fait dañuy gis suñu jigéen yi benn instant ñuy xeesal mais du lu ñu gënal quoi suñu sañoon xam nga femme africaine bi femme noire bi mooy daw quoi benn instant ni xam seen choix la mënoo si mënoo si xuus mënoo si insister quoi benn instant mais li la mën a expliquer daal mooy xeesal.

parce que li ma la mën a expliquer mooy su ma sañoon dèjà du am xam nga parce que dèjà baaxul seen santé beneen bi mooy ñoom ñi ko fi andi xam nañ ne carrément lii juste pour xam nga rey africain bi la quoi waaye bu señoon sañoon ñoom ñëpp ñun ñëpp ay blanc la ñuy doon waaw loolu laa suñu expliqué ok on est prêt jaajëf. xeesal baaxul waaw xeesal ak weddi yàlla la kuy xeesal moo kuy. agressé ak ah, góor jigen ñoy am àtte ku ci né xamoo ak ah, responsabilité nga jël weddi yalla loolu mom amul sax ñaari defe non non man mom jigen awma euh problème ci côté bobu quoi man jikko ju rafet quoi li yàlla taggawoon yenente bi quoi man lo buma don voter voté lay voter quoi jikko quoi waaw ñu bàyyi ko ku ko si bàyyiwul tamit boo deewee man duma wax nit bu deewee fële la jëm mais ku ko si bàyyiwul tamit boo deewee tamit mën nga daje yàlla si lu mu tere woon te loolu noonu ku ne war na ko moytu waaw ak weddi yàlla la waaw. Mhm. waaw Sénégal xam nga euh, en instant bi ko interdit ah yëgu ma ko woon sax mais Sénégal xam nga média bi ñoom ñoo ñoo ñoo gën a poussé booy yi si yenn yi quoi parce que Sénégal bu demee ba réew mu toll ni Sénégal suñ tubaab ne fi ñuy publicité ay protect ay xeesal leneen ak leneen xam ñoom ñoo gëmul yàlla quoi ñoom ñii di wane quoi ñoom waaw man fàllu loolu ñoom ñoo ñoo yàq dëkk bi quoi média bi quoi wala déet waaw yàgg baax waaw. xeesal moom c'est pas bon au fait parce que commencement bi dina nice di nga am résultat yo bëgg mais au fait soy dem ba yenn agi yi mën na la en plus da yak sa yaram vergeture et tout c'est pas bon au fait. ñu bayiko ko mën nañ ko stopper hein produit pharmaceutique yi ngi fi di nga am teint bu toj teint éclat nice te doo laar hydroquinone au fait ouais Bah, c'est bien fait mais nous ñuy teint noir yi gëna maintenir rek parce que buñ ñu gisee nous embellir bayal et tout peut-être dinañu dinañu influencer wu daal bëgg a ñun en fait mais c'est pas bon d'al beaucoup ko defee nag dem ba si digg bi sa yaram yi am ay et tout c'est pas bon c'est pas bon en plus ça de me payer une agite da ngay my god waaye c'est ça de rien ah xeesal xeesal ah, baaxul xamul sama baay ah, dafa doon yàq sama yaram te des fois boo duggee da ngay am deux temps affaire yooyu noonu moo tax ma arrêté xeesal <laughs> euh, dama doon am peau grasse je suis picc mu ma si je suis ah li may conseil si ñuy ça, bàyyi ça baax Je naturel daal ça dàkk moo dàkk lépp Je sa teen boo xam ne yàlla la Je jox dara dàkk ko <laughs> c'est normal dëkk bi ñëpp bëgg xees bëgg nekk tubaab suñu peau bi pourtant nga suñu accepté suñu pobo yalla yàlla buñ ñu jox ni ki moy loolu xeesa da baaxu bàyyi leen ko bàyyi lay fay non xeesal luma ko commencé moy que dama doon sacc sama diwu mag diko laal bu may leral may seetu di gis ni rafet na moy loolu fekk baaxul ma dugg si nag di diw mais j'ai vu que ni dafa doon yaax sama temps ay noix j'ai vu que ni mu yaax sama a affaire yooyu léegi war non buñ parce que baaxul diw yi baaxul suñu diw yi fii mooy loolu te fii rek pour nga diw fi fi bi nga bëgg mënuloo ko am kon nañ garder suñu teint suñu ñuulaay dafa rafet ñu ko a laal am parce que mais loolu loolu loolu benn jigéen waru ko nangu ñu fekk la ak sa teint bi nga ni nga mel ñu ne la diwul ndax ñu bëgg la wala pour ñu takkal loolu benn jigéen waru ko nangu ku lay bëgg na la bëgg ni nga mel ni la yàlla bindee ak sa teint na ñëw accepté la noonu bëggee la noonu la vie continuer mais loolu maa ngi koy rafetlu vraiment lu rafet la parce que buñ ko arrêté noonu na tax xale jigéen ñi si duggul duñ si dugg mais bu ñuy continuer di koy def xale jigéen ñi bu ñu gis xale yi si écran yi ñu rafet seen teint yi dañ siy dugg loolu c'est bien. non man xeesalu ma nag man sama yaay bambara la ma xees naturel wóor na kay wóor na man xeesal dama ko sax compte ma ko compte parce que vraiment xeesal day yàq sa yaram ensuite day tax nga gaaw màggat waaw da ngay gis ko am 20 ans mu ne la 20 ans laa am fekk na nga xool ko fekk na nga ne 60 ans la am parce que day abîmer peau bi et tout vraiment dama compte xeesal franchement. waaw loolu moom am na moom parce que am na gis naa histoire bu mel noonu boo xam ne dafa ñuuloon kuku waaw copain wam bëgg a xees dafa mujj rooti ba mu set billaay wallaay loolu moom am na jigéen ñi moom lu ñu dugg suba ba jant bi so góor ñi ñoo tax mu xeesal ba weex waaw waaw dama leen di wax rek ñu gëm seen bopp parce que nit ki bu la xoolee ba xam ne bëgg la si ñuulaay boobu ba pare ëlbatiku naan la xeesalal tamit loolu amul sens nga ni ko nii nga ma gisee ba bëgg ma man daal loolu laa gis loolu laa leen di conseillé ñu gëm seen bopp daal jàpp mu dëgër waaw. waaw loolu moom baax na trop ndax euh, influence la ñuy def bu baax ndax da ngay gis nit di publicité xeesal nga ni lii de suba ma dem jëndi ko xeesal la kii teint bi rafet na loolu influence la vraiment c'est une bonne chose waaw. Mhm. maa ngi leen di jaajëfal yéen tamit. xeesal baaxul. waaw xeesal ak weddi yàlla la kuy xeesal moo kui agressé ak góor jigéen ñoo am àtte ku si ne xamoo ak responsabilité nga jël weddi yàlla loolu moom amul sax ñaari defe no non non man moom jigéen awma si euh, problème si côté boobu quoi man jikko ju rafet quoi li yàlla tagge woon yeneen bi quoi man loo bu ma doon voté loolu laay votel quoi jikko quoi waaye ñu bàyyi ko ku ko si bàyyiwul tamit boo deewee man duma wax nit bu deewee fële la jëm mais ku ko si bàyyiwul tamit boo deewee tamit mën nga daje yàlla si lu mu tere woon te loolu noonu ku ne war na ko moytu ak weddi yàlla la waaw. Sénégal xam nga en euh, ah, instant bi dañ ko interdit ah yëgu ma ko woon sax mais Sénégal xam média bi ñoom ñoo ñoo ñoo gën a poussé booy si yenn yi quoi parce que Sénégal bu demee ba réew mu toll ni Sénégal suñ Tuubaa ne fi ñuy publicité ay protect ay xeesal leneen ak leneen xam ñoom ñoo gëmul yàlla quoi ñoom ñii di wane quoi ñoom waaw man fàllu loolu ñoom ñoo ñoo yàq dëkk bi quoi média bi quoi wala déet waaw yàgg baax waaw.